di laaxaan si man leen yem leen si man xam nga jarul eh, ñuy dem ci liggéey démb da doon anniversaire jarul ñuy dem ci soxna sedd sell si suñu yaay ji amin yooyu yëpp man yi ma intercepté dafa bari hmm. yi ma dogale hmm. xam naa ne gaa yemut damaa hmm. bëgg rek waaye xam naa ne ah, yemut. dégg nga dégg ay tamit <laughs> yemul. donc euh, tey euh, la fois passée on wax euh, waxoon nañ ni dañuy waxtaanee volet. Hmm. mu nekk drogue bi nga xam ne si à l'ordre jour. Hmm. tey ñu ñëw si incha allah. volet bi bëgg naa ñu ñëw sax bind parce que jaaxal na ma lool <laughs> gisuma soleil. nit ñi di takki lunette. <laughs> effet la léegi naa en général boo volet da ngay takk ay lunette lu tax nga simmi ko. ah bul ko simbi. Mohamed. xam nga na fi dana dafa am ñoo xam ne dañuy laaxaan si. mais am na ñoo xam ne da nga leen a menacé. ah man dama xam lu bari de. tey tey am ngi doon nag. Ah. Mohamed maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di nuyu satu Euh, di euh, di nuyu sama naataango yi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi euh, di nuyu également téléspectateurs yi nga xam ne saa su ñoom dañuy seetaan nag di ñu bàyyi xel bu baax a baax a baax pour le meilleur du divertissement et de l' tey nag dans trois minutes pour comprendre dinañ waxtaanee li nga xam ne tey ji moo nekk situation déplorable bi nga xam ne te ji suñu waa askanu Médina dañ koy dund yooyee jafe-jafe tey dinañ ko indi dans trois minutes pour fi baay maire bi de bii paa nag jafe-jafe bi métti na di wax dëgg neex yàlla. ah maire bi de maire maire. Ah, waaw loolu de lu Bamba yëgul la. waaw xanaa lu ñu nëbb Bamba Fall la. est-ce que doo leen ko envoyé message lu Bamba na ko. ma ne ko Bamba. ah. ah. jafe-jafe kontaan nañu waaw Medina ah, am nañu jafe-jafe de. ayca loolu dinañ ci ñëw léegi léegi ak sëñ Xaadim mais mami loo bu leen fàtte mukk ne mami nuyoowam dafay am lu muy àndal MD Sukiya mami ci loo ne. na waxal ne su mu di ma woo n'importe quelle heure dafa mën a tooñaale moom moom. si lii mami ji waaj a wax parce que démb dama ko woo deux fois d'affilée mami di communiquer sans arrêt mu toog minuit woo ma ne ma ne bàyyil su may wax ak mbaroo di nga may woo ma ne mbaroo di <laughs> mami waxal ak gaynde fi mu ne nag dee xew maroo di njaay mi ngi ci malay de moomoo nekk bu ma xam maroodi mu bàyyi di maroodi maroodi mu ngi woo nii su ma la waxee waaw. lézaat dina mos <laughs> Nafi Momo nuyu naa mm. leen nuyu Neige ah nuyu madame Wade nuyu Bamba nuyu itam téléspectateur yi ñuy seetaan yëpp tey moom xam naa fi Momo duyoo rek lañuy ñuy def ndaxte ma it volet laa indi woon kon xam naa maak euh, madame Wade dañ koy duyoo rek mu gën a neex ndax waxoon naa leen foog ñu wax ci. Mm. nee naa leen xale yëpp lax nañ xale yëpp pàcc nañ. xale boo ci gis mu jeex di ñàkk soo xeeb rek mu ngi ci volet bi. am na ñu bëri ñu ñëwul tey ñu waroon ñëw. Euh, sujet yi lañu xam moo tax xale yi parce que ñoom sujet yi da leen di laal daal moo tax ñëw ñu waaw dëgg la sujet da euh, tant que wax ngeen jël de jógee tey ngeen bëgg ñëpp laa ciy dugal ñëpp ñiy volé ci plateau bi yëpp dina leen dinaa leen wax tey insha allah euh, ah mu ni boobu du jàll moom volé moo ciy ban non ko de. léegi moo xam mooy ko Mouhamed du nee nga ñi absenté dañuy volé woo leen laaj leen nu mu mel. social bi xam ma wax. ci maa ngi lay nuyu dinuy nuyu madame Wade di ko wax ni namoon nañ ko torop di nuyu mami bourgeois ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy seetaan alors toujours la pour vous divertir bu ci kanamee Mouhamed ñu ñëw ci quiz yi comme fi ne màggal lañ jëm. dañuy ànd ak mouvance bi rek. waaw. loolu yëpp e bu ñu ko boolee mën naa nekk rendez-vous bu bés bi mais e d'ici là. commencé leen di réagir ci suñu page Facebook Sen TV l'officiel wala suñu page YouTube Sen TV l'officiel woote itam ci numéro serveur yi nga xamante ni ñoom ñoo affiché ci eh, écran bi eh, bu ko defee ñu jox leen seen ay paasu màggal nii lañ koy jàppoo ak yéen ba le 15 incha allah bu ko jëree sax ñene Touba le 16 ñu yónneewaat leen ñu daal di mën a rejoindre seen ay eh, région tout tranquillement Aïcha Mouhamed bu baaxee mën nañ koo tàmbali ak soxna si waaw mën nañ koo tàmbali ak ñoom chauffeur nañ ñëw ci bintu ay ca madam euh, ni dañuy waxtaanee volet euh, mu nekk euh, dëkk yu bëri en tout cas considéré ko comme stupéfiant Mm. stupéfiant <laughs> waaw moo bu bëri affaire la donc euh, ñu boole ko ci euh, stupéfiant yi euh, stupéfiant nag ku ko xam dafa nekk benn substance toxique bu nga xam ne dafay yóbbu nit ki ci yenn dimension yi parce que substance la boo xam ne narcotique en fait dañ ko considérer bu baax ci drogue yi en mm. plus de cela dafa nekk loo xam ne dalay yóbbu ci état Euh, boo xam ne da ngay euphorique mm-hmm. donc euh, loolu euh, nemmeeku nañ ko ci bu baax et puis di la yóbbu ci état boo xam ne da ngay nekk nit boo xam ne dafay indi insensibilité ci yow donc volet bi bi ñu ko xoolee ay spécialistes def ci ay jàngat dañ xam le ni que amphétamine la donc euh, amphétamine dafa nekk euh, comme nu ma ko waxee rek euh, benn stupéfiant bu nga xam ne dañ koy gis donc amphétamine boobu noonu la première chose bi nga xam ne les les médecins en tout cas dañ ko ci xamle mooy dafa nekk benn forme drogue bu nga xam ne dafay indil nit ki mu nekk ci état boo xam ne comme je l'ai dit tantôt voilà dafay nekk nit bu nga xam ne dafa am euphorie donc lu nekk rek dina ko mun a dékku pour moom et puis mu nekk lu nga xam ne dafay induire à une hypertension parce que euh, dafay indi euh, tati tachycardie donc euh, battement intense du cœur loolu euh, mooy induire hypertension bi parce que hypertension dafa nekk lu nga xam ne euh, bu battement bi intense au niveau du cœur rek euh, donc dafay indi hypertension donc loolu dañ ko ci noter di ci noter ñi nga xam ne dañuy naan en amphétamine boobu dañuy nekk ñi nga xam ne dañuy am extrême confiance en eux donc euh, dafay indi confiance boo xam ne euh, démesurée euh, donc buñ ko naanee da leen di dugal ci excès de forme donc dañuy nekk en très grande forme am physique bu dëgër a dëgër a dëgër et puis lépp lu taxaw rek dañ koy mun a dékko et puis ce qui est extraordinaire dans ça daf leen di yóbbu ci niveau de sociabilité boo xam ne Euh, koo gis rek da ngay mun a composé ak moom facilement ci euh, moment yooyu xam ne euh, jël nga excitant boobu noonu donc c'est important nit yi di bàyyi xel ci problème ñi nga xam ne mun na ko indi et le le plus dommage dans ça mooy dafay couper appétit nit ki Euh, non seulement dafay couper appétit nit ki mais dafay indil nit ki insomnie donc euh, nit ki excès d'énergie boobu xam ne dafa koy àndal euh, dafay associé wu à une insomnie maintenant tout ça pour dire que Euh, volet boobu noonu drogue la euh, drogue bu nga xam ne euh, xale yi ñu ngi ci adonné wu et puis c'est une mauvaise pratique parce que les praticiens dañ koy wax ci cigarette bi nga xam ne rek substance toxique moo ko composé drogue aussi ay substance toxique ñoo ko composé mm-hmm. et substance toxique buñ koy wax dafa nekk lu nga xam ne la plupart du temps le danger dafay créer accoutumance dafay indil nit ki di am addiction bu ko amul sax daf koy uti donc euh, loolu déjà c'est un point boo xam ne important boo xam ne euh, ñi nga xam ne dañ koy jëfandikoo baax na ñu koy bàyyi xel accoutumance boobu mu lay indil boo ko amul sax da nga koy uti donc euh, c'est c'est c'est c'est dangereux pour nit ki et puis euh, les praticiens le disent aussi nit bu nga xam ne tux na cigarette une seule fois rek euh, abus la waxuma la nag nit bu nga xam ne dafay utiliser drogue une seule fois abus la Euh, dañ koy wax abus parce que organisme yi tolloo wuñ dëgër laay mm-hmm. am na organisme yoo xam ne bu ñu euh, utiliser tey volet Euh, séance tenante dañuy gis conséquences yi am nañu ñu nga xam ne euh, à la la leen di euh, détruire nànk-nànk donc c'est important nit yi di bàyyi xel ci loolu te di bàyyi xel ci conséquences yu muy indi ci seen wàllu wér-gu-yaram en terme d'hypertension artérielle qui est une maladie cardiovasculaire di la indil une pression cardiaque rapide aussi boobu aussi peut poussé à des maladies cardiovasculaires sans compter yeneen problème yu nga xam ne indil na la ko parce que la fois passée bi ñuy waxtaan sur les maladies mentales on a évoqué la question de de la génétique parce que euh, am na ñu nga xam ne dans leur gène dañuy am euh, benn maladie mentale bu nga xam ne mu ngi dormir tranquillement maintenant bu fekkente ne euh, amut lu ko yee amut euh, facteur voilà lu ko stimuler euh, borom mun na bañ a développer cette maladie montale mm. mais borom bu amee lu ko lu ci mel ni yenn drogue yi borom di ko utiliser rek mun na yëkkati cette maladie mentale ci moom donc yooyu yëpp euh, c'est bon nit yi di ko intégrer parce que comme on le di encore organisme yi bokkuñu Euh, réaction organisme yi bokkuñu mais ki nga xam ne naan na ko euh, mu def ko une un, un effet immédiat ak ki nga xam ne naan na ko defut benn effet euh, ñoom ñaan ñëpp dina lay indil gàllankoor donc euh, c'est c'est bon nit yi di bàyyi xel ce mhm. des volets là mooy damay waxtaan ak benn benn waay mu ni ma ñoom bu ñu volewee euh, dañuy préférer di nekk fu tàng mhm. di sol yu diis mhm. ci tàngoor bi sol ay kawas Mm-hmm. ay mbàjj ay pilo vert ci ci période tàngoor bi de. Mm-hmm. yooyu yëpp ma ne ko mais léegi loolu pour la la mu ne ci la ñuy gën a yëgee. si si euh, yëf yi effet bi. waa parce que en fait. Euh, les drogues les drogues dafay inhiber yu bëri si nit ki. donc euh, dafay da ngay am yenn yenn sensation yi nga war a am nit yi di ko am muy normal si ñoom yow c' est l' effet contraire que ça te produit. Mm. donc wax nañ ko léegi c' benn inhibeur lay doon. par exemple gëmmentu sax dootoo ko defati pour yow waratoo gëmmentu nit boo xam ne mosoo ko gis boo ko gisee tey mun nga composer ak moom comme da ko xam sans sans sans temps si voilà donc euh, volet bi mooy def lool en fait dafay exciter loo nit ki et puis daf koy defal un plein d'énergie énergie bu nga xam ne habituellement voilà doo lekk doo nelaw donc euh, xam nga loolu rek c'est na ma tamit foo toog da ngay raconter sa vie rek. voilà excès d'énergie la. <laughs> tu es surexcité tu es surexcité donc euh, yooyu yëpp. Euh, <laughs> déjà dafay stimuler le cerveau donc c'est pas stimuler c'est ça excite le cerveau donc luy exciter le cerveau rek déjà c'est pas c'est pas bon pour la santé. Mm-hmm. waxuma la nag yeneen conséquences yi nga xam ne dañ ko ci noter et li nga xam ne moo ci gën a dangereux mooy ñi nga xam ne dañ koy utiliser une fois ñu commencer ko addiction la leen di créer. réel mm, parce que stupéfiant yëpp dafay indi accoutumance substance yi ci nekk mooy tax nit ki euh, du ci mun a passé woote ci Nafi mm. yaa naa gis fu Nafi mm. foolee de. doo ko gis ba mu commencé raconter sa vie. <laughs> amul notice. <laughs> dina wax lu bëri kii déjà yow li ngay wax li ngay expliqué dafa bëri. boo ci volé. <laughs> amul notice xam nga man dama daan gis xale. Euh, euh, booy dugg ci dara sax nga xam ci li ngay dugg la la. parce que aujourd'hui ñiy tox cigarette par exemple. paquet bi bind nañ ci abus dangereux pour la ah, mhm. euh, bi fu mu toll goudron bi mhm. fu mu toll et cetera mhm. euh, euh, sàngara bi nga xamante ni moom la xale yi di daañ leen ci bindal pourcentage bi daañ leen ci bindal li ci ne mais loo xamante ni man musuma gis tablette bu bu bu ñu bu am volet mm. tablette volet parce que apparemment c'est des comprimés mais ci tablette bi mu jugee moi je jamais vu ci ay mouchoir lañ koy laxasanteeg laxas ko ci ay këyit et cetera mu leer la ni yow on te juste des comprimés mais tu sais que malheureusement tu ne sais pas comment faire pour te documenter là-dessus so euh, c' est c' est vraiment déplorable. nit war a mm-hmm. c' est malheureux c' est malheureux d'où l' importance euh, tu sais que euh, nit processus la. Mm-hmm. Euh, nit bu tollewee ci adolescence euh, c' est c' est un moment très difficile pour certains. Mm-hmm. am na ñoo xam ne dañuy vivre facilement seen adolescence jàll ci beneen étape bi mais am na ñoo xam ne dañuy vivre difficilement leur adolescence et c'est scientifiquement prouvé que hmm. du tayeef loo xam ne la euh, si nit ki lay nekk donc euh, bu fekkee nit boobu amul encadrement il est laissé à lui-même rek hmm. dafa nekk nit bu nga xam ne dafay def ay dérives hmm. donc euh, euh, bi mooy tu veux passer à une étape supérieure maintenant ci passage étape supérieure boobu noonu euh, toutes les tentations qui sont autour de toi danga koy jéem a tate mhm. maintenant tentation yi ngay tate nag malheureusement ci de mauvaises tentation mhm. parce que am na si yoo xam ne euh, boo ko laalee euh, par exemple xale yi nga xam ne dañuy dem boîte de nuit. Mhm. Euh, dix huit ans mun nga dugg boîte de nuit boo commencé laal yooyu accoutumance lay doon. nga nga nga am ko da nga koy laal voilà nga nga ñàkk ko am da nga koy laal. da ngay xool si chicha bi. benn njëriñ amalu ko ñi nga xam ne dañ koy utiliser mais substance yi nga xam ne ñooy composé chicha bi mooy am des substances toxiques yu nga xam ne dañ ciy retrouver euh, ay euh, ay produits yu nga xam ne day indil nit ki addiction ak mhm. tumence bi mhm. donc dañ koy uti tout le temps c'est dommage mhm. ah, mamito peut-être dina ñëw ci taxawaayu nguur gi euh, ci yooyu lee xeetu yooyu lee xeetu drogue buñ ko mën a woowee noonu parce que nag mam il faut dire Euh, ñu ngi ciy jàpp d'ailleurs mais je pense que buñ ci defoon taxawaay bu gën a mag mhm. euh, xëy na boobu les drogues dootu circuler fii ci Sénégal ba pare li si gën a kaaw gis nañ ne mois de juillet force de l'ordre yi jotoon nañ ci jóg pour arrêter trafic bi mais n'empêche xale yaa ngi koy gën a utiliser te li ci gën a graaw mooy ci kii yi dañ koy gën a jëndee ci boîte de nuit yi wala ci baar yi mhm. mu nekk nag loo xam ne 10 000 francs lay jar nekk produit boo xam ne dafa accessible lool lool li muy dangereux yëpp yëpp yëpp sénégalais yi ni ñu koy utiliser jéey doy na waa trop mu nekk tamit ci góor ñi ci jigéen ñi ci jigéen ñi ñoo koy gën a utiliser te di leen xamal ne aussi volet bi moo raw tux yàmba moo raw naan sàngara hmm? gis nga boo ko xasee ba naan ci kii yi ñu jot a def recherche yi ñu jot a def boo ko xasee ba naan tat ngay def da ngay tàng jir di nga ñàkk tooy xepp doo xàmmee na fi doo xàmmee moomoo boo xam ne mën nga sekk ak sa papa sa wala sa yaay te doo ko xam. Hmm? loo mën a def mën nga def lu nekk te doo ko xam. mais après bu sa xel dellu see. est-ce nga xam ne defoon na yooyu lu ci gën a garaaw nee nañ doo sax fàttaliku yow. mën mën nga nekk ak moomoo ngeen am lu ngeen def yow doo ko xam. moomoo hmm. tamit bu jëloon xale du ko xam mais ay ciy naan ba war yegg foofu. waaw ça dépend xale yi benn la ñuy jël par journée mais bu ëppee tam mën nga overdose. Hmm. lu grave la loo xam ne il faut que. Mhm. def defuñu publicité mais dañuy def pour sensibiliser xale yi. Mhm. parce que xale yi dañoo complexé am na ñoo xam ne xëy na mhm. mottali seen libido moo leen ciy boole am na ñoo xam ne complexé moo leen ciy dugal bëgg a bokk. am na ñoo xam ne pour fàtte seeni i soucis mais du yoon il faut ñu jóg ci parce que doy na waa trop trop nit ñaa koy caaxaanee mais mu ngi ci dëkk bi xale yaa ngi koy utiliser normal tuddee ko nag tur bu nekk ñii naan ko suus ñii naan ko garaaw. naan ko. suus. beneen bi nga wax mënum tudd. ñii naan ko garaaw. ñii naan ko trap. ñii naan ko ecstasy. ñii naan ko neex. metti dina lañ koy wóor ñii naan metti. waaw ñii naan metti voilà yow xam nga doy na waar daal mu nekk loo xam ne. Mhm. Mhm. témoignage volet yi mës naa lire euh, benn waay di ah. témoigner ci jabaram mhm. mu ne dafa amoon problème ak jabaram xam nga rek tafante affaire yooyu noonu kii di fanaan si néeg bi kii di fanaan si saal bi jabaram di jëfandikoo volet yi mhm. léegi effet volet yi jàpp ko mu fekk jabaram ci douche mu jël euh, douchette di ko di ko oh, euh, di oh. ko pénétrer di ko oh. exactement pour wan la effet yi mhm. muy def en même temps tam ñu ne lesbiennes yi ni muy ëppee moom moo koy indi parce que dañuy nekk euh, benn groupe de filles dans une chambre mhm. jël ko du ñu xam fu ñu nekk léegi ñoom ñooy obligé di ko sekk seen biir. voilà te je vois pas mal de témoignages euh, sur le net. dëgg la ne te pour loo def doo ko xam. ba pare non a soo ko jëlee yow góor sa xel du nekk lu dul ci jigéen. Mm. yow jigéen boo ko jëlee sa xel du nekk lu dul ci góor da ngay bëgg sëy. mais boo ko jëlee loo def doo ko xam. loo def doo ko xam te sexe moom incha allah di nga ko def. boo gisee góor di ko def boo gisee jigéen di nga ko def. parce que drogue yi day am ay effet aphrodisiaque souvent mm-hmm, mm-hmm. soo ko tàmmee aussi da nga siy accro ba nga xam ne tey jii boo ko boo ko tàmmee di jël te jëloo ko da ngay dem ba da ngay nerveux mm-hmm. ba ngay énervé tout le temps te imaginer tey jii insécurité mën na cee am ndax tey ji boo benn mamito amul lee moyens tàmm di jënd chaque jour volet bu dix mille boo ko amul xam nga boo nekkee jigéen di nga jaay yàpp boo dee góor di nga agressé wala nga sàcc mm-hmm. donc il faut ñu jëlaat ci ay matuwaay yu mais aujourd'hui aujourd'hui Bintou peut-être c'est quoi la solution moi je parle même pas à aux personnes adultes et matures comme ñun ñiy toog ci mm-hmm. plateau bi waxuma waxaluma ñun mais tout temps les ados xamuñu vraiment. Euh, conséquences yi conséquences yi c'est quoi la solution. peut-être les sensibiliser parce que je crois que euh, lépp lu ñu mun a def rek mooy sensibilisation d'abord dans les maisons. et euh, il faut que tamit euh, dans dans dans les euh, boîtes de nuit. muy am ay ronde ñi nga xam ne dañuy wër di vérifier lan la xale yi di def exactement loolu parce que loolu aussi dafa nekk lu nga xam ne ci koom-koomu réew Euh, bu jeunesse bi nekkee di adonné wu ci pratique yu nga xam ne baaxul ci euh, ñoom rek mun na suuxal euh, koom-koomu réew mhm. donc loolu aussi baax na état bi di déployer ay moyens am ñoo xam ne dañuy def ronde ci boîte de nuit yi xale yi yem ci fo bi nga xam ne rek euh, boîte de nuit moom la laal te bàyyi addiction yi nga xam ne yematuñ ci fo boobu de. noo yematuñ ci te c'est malheureux am na benn jour ñu ngi doon wax euh, tabac bi nga xam ne dafa am dans le sud du pays mhm. tabac boobu jigéen yi ñoo koy def seen kanam euh, muy constituer loo xam ne aphrodisiaque la ba mu gënal leen nekk ak seen jëkkër yi donc yooyu dañu koy gis tout le temps drogue yi nga xam ne nit yi dañ koy utiliser mhm. mais jot na tey aussi les acteurs de la santé toog euh, ni ñuy defee ay euh, communication ci yenn feebar yi di def communication euh, di prévenir yenn yi c'est bon aussi di prévenir di def prévention par rapport à la jeunesse pour ñu bàyyi yenn pratique yu nga xam ne deful dara lu dul gaañ leen parce que ñi koy def en général ñu sax nit ñu nga xam ne mën nañu gudd fan mhm. parce que li muy yàq si ñoom mu ëpp li nga xam ne daf koy defal et en général ki la koy découvrir loo day nekk koy jaay mm. pour la plupart du mm-hmm. ku koy jaay mooy fexe ba ñamal la ko mm-hmm. bu subaa nga accro chaque jour nga ñëw jënd parce que première fois bi dañ lay may buñ la mayee di may la mardi mercredi boo buñ la mayul da ngay lijjanti noo jënd ah, ñamal nga xool waaw mm-hmm. comme Bintu nu mu ko waxee rek ci même mouvance bi donc euh, les acteurs de la santé ñoom tey jii dañoo war a dem xoole ji nga xam ne tey ñoo nekk suñuy njiitum réew ñu jéem leen a coiffer pour ñu jéem a combattre li nga xam ne tey jii moom moo nekk boobee ndaxte volet tëb tëb rek dugg si biir dëkk bi mhm. donc am na fu muy jógee mhm. ñen ñoo koy jaay wala tey ji ñu jàppee benn mamito mu mu mu mm-hmm. koy jaay wala mu ko utiliser yan daan moo ko si war a teg mm-hmm. donc yooyu noonu tant que affiché wuñ ko rek mm-hmm. jeunesse bi du ñu bàyyi li nga xam ne tey moo ne consommation boobu noonu ñuy et puis malheureusement nos frontières sont tellement poreuses euh, Sénégal ku nekk dafay dugg facilement ku nekk buy dugg lu ko neex dugalaale euh, facilement donc yooyu aussi baax na Euh, ñi nga xam ne ñu ngi ci frontières yi ñu ci bàyyi xel et puis euh, les acteurs de la santé surtout euh, di def yenn sensibilisation yi parce que c'est pour la bonne cause mm-hmm. coûtewu leen dara ay temps Euh, ñu taxawal benn kuréel pour rek euh, dimbale la jeunesse d'autant plus que euh, am na benn service bu nekk hôpital fan mm. dirigé par professeur Ba ku nga xam ne dafay lutter contre les addictions parce que moom bëri na lu muy recevoir des cas addicts yu nga xam ne dañuy commencer woon par des drogues mm. mujjee ci ay situation très compliquées donc yooyu aussi c'est important ñoom ñuy def quelques sensibilisations euh, pour la population jeune di ko defal parents yi aussi c'est important. Mm-hmm. ayca am na solo euh, buntu kan man rek voilà donc di wax ne vraiment mu ngi def ay ravages yu bari ci dëkk bi. Mm-hmm. ba tax na nag euh, suñu autorités yi war nañ nag. indi ay matuwaay pour ñu mën a arrêter trafic bi ndax nag doy na waa trop te xale yi ñoo koy gën a def pour préciser loolu xale yi mm-hmm. ñoo koy gën a utiliser te nag xamuñu conséquences yu leen ci mën a fekk voilà mm-hmm. comme ni ko Bintoukane waxee rek am na ay am na ay conséquences lu ci mel ni hypertension artérielle ak tamit maladie cardiovasculaire ak tamit perte de mémoire wala sax dof ndax boo ci abusé da ngay dof mm-hmm. xaaj ñi nga gis ñëpp ñu ñu leen di yóbbu ci hôpital psychiatrique yi drogue bu métti dong moo leen ko yóbbee mm. donc nañu xoolaat bu baax seen taxawaay xale yi bàyyi forcé bàyyi complexé moomoo nag xale boo ci romb lax léppam bàyyi jeex ndax volé fàcc mel ni mango fuusaa. ma ngay volé maam li nga xam ne jaaxal na damay gis xale bu am 17 ans mel ni ku am. da am na ñetti doom. sur le Saint-Coran bi sax man leen di gën a sa yaa gën a fere eh, koo ci gën a gis laa la wax naan kii xanaa dafa am ñeenti doom ak juróomi doom lan la lu ko dal xamal ne ma ngay volé seen lépp a bàyyi. xale bu am 12 ans mu romb la mel ni mag bu am 40 ans. ah man na nga gis meer na fi mu bañ ne du bàyyi meer na fi. maa la ko jàppatlu ba dëgg. boo paree na fi xoolal terme yi dañ koy tuddee na métti nii suuf wàcc si suuf <laughs> nga gis leen seen yëpp di def nii. da ngay jékki-jékki gis kuy feeñ nga naan ndax daa amee rab ba pare rab yi sonal nañ leen. Mhm. dañuy xool bu ñu nee tat nii. ñu naan daa ami rab ak jinne ko dugg dara jotu leen volet bi la <laughs> Mamito xam naa lii buñ ko toppee coowal volet duñ fi euh, jógee parce que nag c'est un sujet qui alimente beaucoup de discussions ci toile mhm. bi te li ci graaw mooy loo xamante la loo xamante ne la moomoo euh, dafa dafa inodore incolore amul xet amul amul amul parfum du boo ko defee mën nga voler dugg seen biir kër. kenn du ko xam yow. yow doo dugg seen parents yi duñu ah, xam. ah joxe fo foo dugg. Eh, ballon yi mooy la fi est-ce que xam nga hmm. naanee du sàngara de doo xeeñ. kenn du xam da ngaa voler maa la ko wax doo xeeñ amul benn trace. xam naa daal sa bëti moom dina tàkk loo tiim foog ne safara. Hmm. Hmm. maanaam envie yi voler di joxe ma jaaxal. moo tax parents yi foog ñu xoolaat ko foo jaar moom incha allah di nga kii. mais Bintu il faut nga ñëw si ballon yi tamit ballon yi moom dalay dalay def nga handicapé. ballon boobu xaw ma ko woon. ballon yi hmm. eh, kii bi la. kii la bonbon la bi ñuy bi jël si crème fraîche. nit yaa koy manqué. xam ngeen yëf yi de. boo bokkul ci ah, bokkul ci chicha. nit ñee koy manqué. <laughs> waa ne il faut après nga won yi luy ballon yi defal ñu ci sujet. waaw incha allah am na solo euh, am na solo bu baax ndaw ñi nañ delloosiwaat suñu xel yi bu baax a mm-hmm. baax. c'est très important ñu delloosi suñu xel yi Mouhamed bàyyi lool bul essayé loo xale bi nañ ne nit ñi nañ bàyyi moo gën ñu leen di. Ah, essayé waaw waaw de dama lay doole baaxul bàyyi loolu. <laughs> bàyyi loolu. te dama bëgg xam ba xam bi ñu wax dëgg la wala du dëgg. waaw yow boo ñëwee wax ma. waaw rek eh, ba pare na fi pour tëj. am na am na aussi borom kër yoo xam ne des fois dañuy voleloo seen jabar yi. man gis naa ko ci tas seen waaw. pour lan parce que des fois tam nee nañ boo jëlee volet bi da am kàttan. ba pare tey jii xam nga am na yenn acte yoo xam ne xam nga sa jabar bu toppee diineem du la ko nangul hmm. boo ko jëlloo vole xam nga foo ko xolloo fa lay xool ndax du xam lu fu hmm. yoo xam ne dañuy voleloo seen jabar yi pour sa yëg gis naa ko ci tas sëyam pour ànd ak yow dana naan vol vol violé la. yow suba ah. da ngay ñëw de suba oh, jeudi. incha bu ñëwee ñu yaatal ki ci tas. moom vol violé la vol violé xam nga vol violé. waxaat loolu mooy vol violé. ci rubrique société bi suba mami dinañu yaatalal incha allah. Mm-hmm. Euh, naka la waa ji def ba tas ci euh, sëyam am na solo daal man daal bëgg naa vraiment mm. loo xamante ni euh, porte de la l'Alélam sans retour. balaa nga cee aller nanga ko xool xoolaat ko c'est très mhm. important nit day conscient en fait man dama mhm. bëgg euh, conscience ci doomu aadama ak lu mën a am rek na nga na nga na nga conscient sur beaucoup de choses c'est important mhm. euh, sëñ Khadim bu baaxee mën nañ dem xool yi tey lan la ñu war a comprendre <laughs> ah koy wax loolu. sant sëriñ bi rek safar gi. Hmm. damay safar nag samedi woo naa ñëpp. incha allah ah Ouest Foire waaw rond-point rek ku ñëw na ma woo téléphone rek. Hmm. incha allah. nga yi <laughs> màggal nga safar. Ah. ba gàmmu Tiwaawan. <laughs> ma ànd ak ñoom nga woote. laayeen laayeen bi ñu nga weex tal yow. kaala yi ngay commercer. waaw ah, baax na. demal ci 3 minutes. yaa ko def de. waaw baax na baax na amul problème. sa téléphone bu ndaw bi. waaw merci beaucoup kenn xamul Marie Laye ki na téléphone bu tol nii waxal ñetti minutes pour comprendre demal. <laughs> ayca Mouhamed Nafissatou ah. tey nag dañu daal di indi li nga xam ne tey ji taxaw seetlu dans trois pour comprendre dinañ waxtaanee li nga xam ne tey ji moom moo nekk situation déplorable bi nga xam ne waa Médina ñu ngi koy dund mu nekk ab jafe-jafe boo xam ne euh, depuis inondation bi mu leen dalee ba tey ñu ngi euh, am boobee xat-xat donc ñi nga xam ne tey ji euh, li nga xam ne moom moo nekk tuyau yi daal di ballee si li nga xam ne tey ji moom moo nekk dugg ci tali Médina yi daal di yàq lépp loo xam ne tey ji daf leen di jariñ waaye tamit mu daal di leen indil li nga xam ne tey ji moo nekk ay jafe-jafe santé ndaxte soo xoolee daleen di indil li nga xam ne tey ji euh, ñàkk wérgu yaram bi fa nekk mu leen di def ay picc surtout xale yi nga xam ne tey ji ay tànk na la ñuy defi di euh, dox foofu noonu ci mbedd Médina yi mu nekk nag ab taxaw sedd boo xam ne ñoom na ñu ngi woote wallu wallu boobu nag euh, dañ si daal di ànd ak ñoom avec la complicité de la régie bii melokaan muy ndox mu bon bi jaxasoog ndoxu taw mile lile bàyyee ko ci fosse septique yi égout yi. li ci ëpp ci kër yi lay jóge waaw ci foos yi li ci des tuyaux yi ñoom ñoo bouché ak ndoxu nawet bi dolli ko ci. travaux pré-hivernal la xaw ma lan gars yi defuñu ko waaye bu ñu ko defee gis nga ba léegi tuyaux yaa ngi lay bouché ñu ngi ñaan nag ñu changé waat démétri parce que population bi dafa yokk. xar kanamu Medina bile mooy wane jafe-jafe yu fi askan wi du dund bés bu ne. chaque jour muy ball léegi eh, mu ball ci bi ci biir kër gi lay ball mu ni ngi ay xale la ñuy yor suñu doom yooyu looru chaque jour ñu dem hôpital bi jënd ay garab. xeet gi di ubale nooy yi fi jafe lool ñi leen di sàkku ci autorité yi ñu indi ci saafara. ñu jël ce ko appelle le volet assainissement jox ko maire yi dina permettre maire bu ci nekk gox bu ci nekk ci waxtu bu yàqu yàqu yàqu bu ñu leen séddale dañ ñëw ñu defar ko. société yi nga xam ñoom lañ jox ñu def ce qu'on appelle les bu ñu ko jëloon délégué ko les maires jox leen ay hydrocureurs fa la liggéey bi di gën gaawee liggéey bi ñu fi yëkkati fii ci Médina jëm ci wàllu assainissement ñi fi yeewoo di sàkku ñu yeggali ko. saa euh, su ne dañ koy wax la santé avant tout donc mm. suñu demee ba di euh, am ay jafe-jafe wér-gu-yaram donc euh, ñoom nag ñu ngi woote wallu wallu boobu nag dama naan bàmba su ko defee daal nga gëstu say say say say njaboot ndaxte métti na lool nag li nga xamee tey ji moom moo nekk tuyau yooyu noonu nekk ci biir Médina moo daal di bënn nag daal di ball Euh, dugg ci biir koñ yi léegi ànd ak li nga xam ne tey ji moo nekk fonds yi mu nekk benn affaire boo xam ne tey ji métti na lool ndaxte euh, ab xet gu bon mu ngi fay euh, balle li nga xam ne tey ji moom mu nekk ñàkk wér gu yaram tamit mu ngi fa ndaxte tey soo xoolee seen i yu bare bare bare dafa commencé li nga xam ne tey ji moo nekk yàqu donc jafe-jafe yooyu nag ñu ngi koy dund te donc ñoom it ñu ngi bëgg nag ab wàll donc saa su nekk dañ koy wax olof Njaay nee na garab gu la sutu du la mën a may ker waaye ñoom it soxla nañ li nga xam ne tey ji moom moo nekk leen tàllal loxo bu baax a baax ndaxte ba jafe-jafe ñuy dund métti donc c' tout dans trois minutes pour comprendre na fi mu j' mm-hmm. espère que euh, a compris euh, mm-hmm. Bamba Fall parce que moom nit ku baax la instant yu mel ni nag du ñàkk ci yenn gox yi parce que boo mm-hmm. demee jàmmalaay di nga fekk ay tuyaux yu toj boo demee Pikine boo demee Fadja di nga fay fekk donc maire yi euh, ñoom ñoo war di euh, gëstu population bi et j' espère que euh, Bamba Fall moom mi ngi seetaan sax dina gëstuwaat parti boobu nga xamee ni dafay euh, lor benn parti ci waa Médina donc mm. merci beaucoup sëñ Bamba mm-hmm. hmm? waaw kon noonu rek après joxante rendez-vous mais merci beaucoup ki nga xam ne tey jii mm-hmm. moom moo nekk Abdallah tey moom moo habillé maa ngi koy ñaan bu baax a baax depuis Ouest Foire merci beaucoup moom Bro. Aïcha Nafi Aïcha merci beaucoup sëñ Khadim moo nekkoon 3 minutes pour euh, comprendre mën nañ dem directement euh, pour se détendre les nerfs avec Antoinette bu ko defee ñu dem xooli les quiz du jour Ahmed Nafi bu noppee au niveau de la régie ñu jox ñu première quiz bi ñu xool kan moo koy trouver cent. ku ko way sukki bàyyi mu dem. xoolal ki yow bàyyi jafar nga si nit ñi. yaa ngi ko woowee nee na maa mbaa ba kii Fatou Gueye. non non yaa ngi ko woowee de. nee yaa ngi ko woowee man la Fatou Gueye. tuuti. non non recommence su demaatee kàddu yi ñooy ñëw. <laughs> na fi xaadim. loolu last chance Bintu yow trouvé ko yow laa ko last chance MD. Pape Coppet MD bàyyi mu dem bi si topp waaw mais lii lan la MD bàyyi mu dem baax

yàlla baax na na fi Mouhamed mm-hmm. <laughs> yéen moom ba ma wàcc naa jot bugaan incha allah mm-hmm. dañu laa wàññil benn waaw man bu leen ma baabee leen koy ndar képpee rek. ba ëllëg incha allah. ba ëllëg Nech merci beaucoup.